donc si nous visité l'île nous sant yàlla wax Le ce lañ am projet bi buñ ko été xam nañ avons négocier avons nañ ko ci délai Nous avons délai yu nous buñ ko avons aussi ñu bëri yaakaaroon nañ démarrer mais gis Nous avons fi am de négociation signature léegi ñu ngi ci vous tabax central et fondation fi ak le nombre d'ouvriers yu ñu gis ci chantier bi xam nañ ne lii dëgg la lii commencé na kon boog dañ ciy sant yàlla di ci gërëm son excellence monsieur le président de la république ndaxte lii xalaatam la lii gis-gisam la li lii bëgg-bëggam la maanaam ñu defar loo xam dina jëriñ sénégalais yi mais ñu fexe ba nga xam ne loolu ñuy def sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp loolu moo tax bii nekk centrale bu njëkk Sénégal boo xam ay sénégalais kese ñoo ko def et puis rax si aussi mu nek centrale bu gën a mag Sénégal moom la tabax fii 300 mégawatts et que loolu bu amé ñuy yegg si fii nii ngeen gis banque yi nga xamné projet bi yépp intéressé nañ taxaw manifester sen engagement woné ñom sawar nañ pour accompagner projet bi kon loolu dañ ci sant Yalla bu lutax projet bi nak am importance ndaxte xam ngeen né comme dañuy jëm ci Sénégal émergent nit ñi dinañ gën a soxla courant gis ngeen ko TER bi courant la gis ngeen yeneen projet yu mag yi nga xam ne président mu ngi koy taxawal yëpp dañuy soxla courant moo tax ñun si suñu wàllu plan ñu ne dañuy gaaw anticiper ndaxte li fi amoon mënatu fi amaat dañuy gaaw anticiper moo tax toujours ñun dañuy xool demande courant bi fu muy war a toll ñu jël suñu disposition pour def ko loolu moo waral ñu tabax central bii nga xam ne 300 mégawatt la mais aussi électricité bu ñuy war a jox sénégalais yi il faut mu yomb. ndaxte bu seeree dina indi gàllankoor ci seen compétitivité loolu moo tax ñu indi centrale bi ogaz gaz 300 mégawatts centrale bu gën a rëy ci Sénégal mais aussi centrale bi nga xam ne njëg bu muy jaayee Séné Sénélec mooy gën a yomb te loolu nag bu ñu continuer noonu dina dem ba nga xam ne commission de régulation bi nga xam mooy fixer tarif yi ci Sénélec dinañ wàññi électricité bi pour consommateur et loolu mooy gis-gis ak bëgg-bëggu président Macky